UCAB FM li gën a fës ci yéenekaay yi Papa Saer Mbaye bis simil langu gu tas gu moom la nemmeeku ci langu politique yi yéen kaay yu bëri ca lañu dikk dañu ko nemmeekul jamono ji ki nga xam ne kon ñoom ñoo la ko ci waajal ne nag fu bëri bëri foo xam ne kon jamono ji ña nga ca njort ak wasaaro mbetteel amu ca ndax naka bëri na ci ay coalition yu am na ñeen ñoo xam ne dinañu seen wàllu ko bopp yu wut nañ seen yoon woo xam ne kon foofe la ñu xàll ngir mën a soobu ci wàllu ko jongante yéenekaay bi xëy di ñu xamal ne na langue yi nga ne kon ñoom ñoo fi nekk ci biir réew mi ne kon jaaxale na lool la ko waral mooy yu bëri yoo xam ne kon jamono ji gis nañu ko fenn fu mu fay wasaaroo ñi mer di ko taxawal ñenn ñi nga xam ne kon si déggoo lañu ko taxawal am ñeneen ñoo xam ne kon ñoom nag ñàkk moo tax ñu bokk ci liste yooyu yéenekaay bi xëy di ñu xamal ne ba fi mu toll nii Benno Bokk Yaakaar lu jëm ci wàllu ko féewal xuloo googale mucc ca yéenekaay bi duñu xamal ne luñ ci mën di nemeeku jamono ji nga xam ne kon njiitu réew mi nga xam kon moo nekk ca bopp coalition boobu la ko ngir rek a bañ li nga xam ne kon moom moo di féewaloo gi waaye nag bëri si xam ne kon maire yoonu bopp wut nañ seen ay liste wala ñeneen ñoo xam ne la ñuy àndal yéenekaay bi xëy duñu la république ap di ki nga xam ne kon ñoom ñoo di APR ak bi xëy duñu xamal ne bëri na si ñoo xam ne kon ay mbiicoog mbaaloo dëggantaan ca la ñu ne yéenekaay bi ba tey duñu xamal ne liste yi nga xam kon moom lañ ciy jot a fésal ñi ànd nguur gi ak ñu àndal ñoom nag jamono ji ay jafe-jafe dëggantaan la am ngir mën a xool li nga xam kon moom mooy jëm ci wàllu jongante yi ñu mën caa am ndam opposition opposition bi di ku jeg politique yi yéen kaay bi duñu xamal ne ku ci mel ne waaye askan wi ak wàllu Sénégal yéen kaay bi xëy diñu xamal ne ñoom itam daanaka pëcc xooga bëri na lool investiture doon li nga xam ne kon moom la war a samp ñi war a soobu ci wàllu jongante yéen kaay bi xëy diñu xamal ne bëri si ñoo xam ne kon mer la def ba fut le quotidien yéen kaay moo xëy diñu connecté les échos yéen kaay ba tey ma nga ca pëccëxoo gi nga xam ne kon daanaka fépp la nu ko gisee ci li nga xam ne kon moom di langue politique yi yéen bi xëy di ñu ànd ak njiitu réew mi yéen kaay ba tey di ko dëggal ne nag luñ ci mën di nemmeeku président Macky Sall ak ñamu àndal jamono ji seen langue gi day langue bu ma sàmb ndax fi mu toll nii wasaaroo dëgg dañ ca jota nemmeeku yéen kaay bi ba tey di ñu xamal nag ne luñ ci mën di nemmeeku jamono ji ne kon moom la ñu gis ci wasaaroo googe ci ñi ànd ak président Macky ñi ci kujje gi ñoom itam desuñu ginnaaw ndax ñoom itam bëri na ci ñoo xam ne kon wasaaroo noonu kenn ku ci ne yaa ngi wut sa pexe yoo xam kon da nga a am am ci wàllu ko jogante yi nga na ko lii di jogante yi moom ña ngay wut pexe yoo xam ne a am ndam ci lu a ko jogante yi yéen bi xëy di xamal nag ne bëri si ñoo xam kon taxaw tem ñoom foofu dana noppale ndax kat kat ñoom nee nañ doonuñu fay wuñu bokkuñ ci xeex bi dañuy toog maanu ca yéen bi xëy duñu xamal ne mer ne ci kilifa politique yoo xam kon fi toll nii fan lañ jàpp ni ñaar fukk ak fan ci weeru janvier atum 2022 loolee ab natt jëm ci wàllu 2024 bi nga xam kon ca la fas ki war jiite réew mi laas yéen moo xëy duñu ko xamal ne bu ñu sukkandikoo ci ñu bëree bëri ñoo xam ne kon dañuy xeltu ci wàllum politique nee na nga xam ne kon moom la ñu sóobu day ndam li ak li nga xam ne kon moom a taxaw na ngir nag mën a jàppale ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di ay jëwrinam ci jongante local yi nga xam ne kon moom la nuy waajal su naataango di ñu xamal ne benn tànnif goo xam ne kon def nanu ko ca mu doon loo xam ne kon dañu ko ca taxawal ngir nag mën a wuyu lu jëm ci wàllu ko nekk ni bi duñu xam ne mouvance présidentielle doon ñu ànd ak njiitu réew mi moom nag li nga xam jëm ci wàllu ko réew la ñu bëgg làngale lu bëree bëri ñu jël ca ndam yéen kaay bi neen ndax dana mën a doon lu antu nuñ ci mën di nemmeeku yéen kaay bi xëy duñu xamal ne bëri na ci ay diiwaan yoo xam ne jamono ji xel na ca lool ndax nag ndam li kan moo koy jël ba leen ci tontu yeneen yéene kaay ñoom nag ña nga ca fi mu toll ni xeex bi nga xam ne kon jëm na ci wàllu investiture yi doon ñi wara war a samp ngir ñu mën a laaj baatu askan yéene kaay bi xëy diñu xamal ne cooli kay fi mu am bëri na loolu Walf Fadjri quotidien nag luñ ci mën di nemeku jamono ji ndakaaru moom kan moo koy gañe kan moo war a jël ndam la yéenekaay bi xëy di ñu xamal nekk xeex ba dëggantaan kay foofee lañu koy séentoo ci diggante ñi nga xam ne ko ñoo nekk ci nguur gi ak ku jëkk politique yi kenn naruta may sa morom dara yéenekaay bi ba ne luñ ci mën di nemmeeku lu jëm ci wàllu woowule képp jëwriñ nga xam ne kon moom lañu dénk wàllum wér gi yaram wi Abdoulaye Diouf Sarr moom la ñi nekk ci nguur gi tànn ne moo leen fas yéene dugal ci wàllu làngu googale ca ndakaaru ngir mën ko xëccoo yéenekaay bi xëy duñu di nemmeeku du yomb dara ci kii di Diouf Sarr mi nga xam ne kon moom la président Macky Sall Sall ak ñi mu àndal yaakaar ci capitalu Sénégal bi yéenekaay bi Walfadjri di ñu xamal nag ne ñi nga xam kon moom la doon wëjjël ci wàllu ko langue gi nga xam ne kon tànn Diouf Sarr bari na si ñoo xam kon waxuñu de waaye neexu leen benn yoon ndax ñooñee duñu xëpp jàpp suuf si cere ji yéen kaay bi di l'observateur ba tey ma nga nu xamal ne li nga xam ne moom moo di waxtaan wi nga xam ne ko ci jéem a am fi nga xam moom moo di diggante Khalifa Sall ak ñenn ci ñi xam ne kon ñoom la amaloo réeraloo ci wàllu kataani bi foofu la ci diwaanu kan Dakar yéen kaay bi xëy di nu xamal ne lenn ci langu ñoom fi mu toll ni pëcc xoo dëggantaan la nu def réeroo ga métti na ci lool yéen kaay bi xëy nu xamal ne luñ ci mën di nemeeku daal Ndakaaru moom fi mu toll nii xeex ba moom nar na caa métti lool kan moo nar a jël raw gàddu ga yéen kaay bi ne dana metti dana ñu jafe lool ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg kan la maire bu commune d'arrondissement bu Mermoz Barthélémy Dias yéen kaay bi kaay bi xëy di xamal ne ki nga xam moom moom mooy maire ba moom itam nee li nga xam ne kon na ko du ko baax mbate mu daggee lu jëm ci wàllu woowule di jongante yi moom faaw dana ca bokk l'observateur yéen kaay ba tey ma nga ca coalition Yewwi Askan Wi di xamal ne jamono ji fekkee coow li bëri na ci lool vox populi yéene kaay ba tey ma nga ca li nga xam ne kon moom moo di taxawaay bi nga xam ne kon taxaw nanu ko ci ñi nga xam ne kon moom moo di biir bi nga xam kon a moom moo di coalition Sénégal la bokkoon génn na moom

jël nañu ab dogal nee na nag li nga xam kon moom lañ doon toppee lenn ci kër yi nga xam ne kon moom moo di këru taskatu xibaar yi doon koppar yu moom lañ leen toppee ajaan nanu ko ba jëmmi jamono yéenekaay bi ne lan ca teg nag mooy li nga xam ne kon moom moo di waa D-Média di Bougane Gueye Dany ak waa këram ñoom nag faaw danañ fi yónnee ndaw loo xam ne kon dana toog waxtaan naka lañ ma def ba li xam kon moom moo di coow li nekk seen diggante ñu mën koo lijjanti Mamadou Ibra Kane di njiital CDF si doon kuréel gi lëkkale ñuy jiite moo ko fësal lu mel ci bi nga xam ne kon moom moo di eMédia point sn com la ñu koy jeexale yéenikaay bi nekk ci internet bi ma ngi ca mbas mi di coronavirus sunu naataango yi ñu ngi xamal réewum Sénégal gaaw tey bii di fanweeri fan ci weeru octobre atum 2021 Sénégal gépp juróom-ñetti nit la ñu gis ñoo am doomu jàngoro ji yéenikaay bi xëy di ñu xamal nag ne ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ko amoon am na si juróom-ñeent ñoo xam ne kon wér nañu si limuñu ci kenn ku ca ñàkk bakkanam waa kër docteur jamono ji ñaar te ñaar fukk ak ñeent la ñu di leen faj ñaar ña ña nga sooy taas mbokk yi yéen a kaay dig daje ëllëg incha allah. UCAB FM. li gën a fës ci yéen Papa Saer Mbaye.